yi ñoo ko gisandoo muy arrivé bu Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké nekk euh, kilifa gu ràññeeku ci li nga xam ne mooy euh, askan bu Taïba Cekkeen mu daal di yegg si fii euh, ci diwaan bu Diyoli waaye nag mbokk yi daal di koy accueillir accueil bu chaleureux daal di koy dalal jamono ji mi ngi ci biir di saafonte ak ñi nga xam ne ñooy mbokki askan wi bu Touba Diyoli mbokk yi loolu bokk ci lenn lu fi am fii ci diwaan bu Diyoli ci li nga xam ne mooy màggalu Serigne Mame Aliou Seck naka noonu danañ daal di dugg ci biir waañ wi xool jamono ji lan moo lan moo fa am fan la toll waaye ci fàttali rek tey ci suba euh, ci màggal gi def nañ fi ay wàcce kaamil ay ay ci ay euh, lim bu takk lool macha allah lépp rek daal di koy delloo mu doon am ñaan ci ki nga xam ne mooy sëriñ maam Aliou Seck euh, jamono ji ñu ci ay réglage lu jëm ci wàllum bâche beeg yooyu ñu ngi koy réglé laata cérémonie bi di tàmbale gi ni mel mbokk yi gannaaw bañ jullee ba noppi jullit tisbaar jamono ji ñu ngi ci waañ wi di xool naka lañ koy réglé rek ñu daal di mën a ci nga xam ne mooy añ beeg yu ay ndekki amoon na fi xam naa buñ duggee ci biir ci waañ wi danañ ci a am kenn rek bu daal di ñuy wax li nga xam ne moo fi am ci plat yeeg yu ni ah, daal di xam ah, li nga xam ne moo am ah, ci li nga xam ne mooy màggalu Serigne Maam Cheikh Aliou Seck mi nga xam ne comme ni ma leen ko waxee ndigal la ba ndigal lu bàyyi ko woon la ci ki nga xam ne mooy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fa diwaan bu gànnaar mu daal di fii ci diwaan bu Touba Dioli gi daal di fay amal ab ab ab liggéeyam ci kanam tuuti comme ni leen ko waxee daal di continuer li nga xam ne euh, mooy liggéey bi fii ci diwaan bu Touba di Yolli jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni leen euh, li nga xam ne mooy liggéey bi daal di jëm ci màggalug Serigne Maam Aliou Seck may jàkkaarloog kenn koo xam ne ci waañ wi laa fekk moom mu nekk euh, jàmbaar lool ci li nga xam ne mooy liggéey bi ma fas yéene sax ak moom ay baat ak ay laaj ak i tontu lépp daal di jëm ci ay leeral mu jëm ci waañ wi yu nu mel maam booy maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar waaye sama doom ñu ngi nga xam ne waajal ngeen ko mu daal di jëm ci màggal yeeg yu ni mel. asalaamaaleykum maa ngi leen sant bu baax ci leen gërëm kontaan ci seen ñëw bi ndax am na solo lool ci màggal gi. màggal gi nag taxawaay bi ak euh, teewaay bi fi ñu ngi joxe ndékki ci suba waajaloon nañ ay xeeti salaat ak li war a àndal yëpp fi ñu ne nii nag ci ceebu ndawale lañ nekk. ak euh, laaxu bisaab nag ko ceeb bi gënalul tamit bu la laaxu bisaab bi gënalee nga baar barkeelu ci bokk yi ñëw nañ dëkkandoo yi tamit ñëw nañ ñu ngi leen sant bu baax a baax baax gis nañ seen teewaay ñoom ñëpp ci bis bi waaye xam naa ci kanam tuuti sax ñu war a ñëw ci wàllu seddale bi euh, comme ni nga ko waxee jamono ji kon ci añ bi lañ toll euh, ci laaxu bisaab bi wala ci li nga xam ne mooy mooy ceebu ndawal yeeg yu ni mel ngir kenn ku ci nekk mën a def sa choix boo li mën dem ci ci léegi comme ni nga ko waxee dafa mel ni Eh, ni ngeen ko ngeen ko waajalee takku na loolu ci ay mën ak yu ni mel lu waral loolu da ngeen a séntu mbooloo mu takku lool wala lan la. waaw séntu nañ mbooloo mu takku ndax ku toll ne maam Aliou Seck ku koy wooteel ak eh, bisub sant ko war naa rey ndax dafa bàyyi woon yitteem yëpp laxasaay fekk sëñ Touba xomaat ca booba mbir mu metti la woon ndax ba mu koy def dox la ko defe woon ca ma nga jógee woon Mbakol ànd ak ku ñuy wax sëriñ bopp si la dox dem ba Mbakol loolu xam nga ni lu jafale ci réew mi kon demee ba léegi nag ñu koy xeeñtu des fois euh, pëste fam boobu demoon fekk sëñ Touba Xomaak kon yëf yi warta tuuti dëkkandoo yi dina ñëw mbokk yi dina ñëw ak xarit yeeg ñëpp mu mel ko waxee noonu ci biir waañ wi gis ñoo xam ne euh, ci dëkk bi lañ dëkk ñoo xam ne ci mbokk gi lañ bokk ñëw daal di jàpp ci liggéey bi muy góor a jigéen mag ak ndaw lan ngay wax ci loolu ñu leen sant baax di leen gërëm ndax waa dëkk bi ñëpp génn nañ macha allah kenn bàyyiwul góor ak jigéen mag ak ndaw ku nekk fi ngay jàpp waa mbokk yi tamit ñi nga xam si mën na ñoo ñoom ñëpp tamit ñëw nañ leen sant baax baax dina gërëm gis nañ seen taxawaay ci bis bi sant ko gërëm ko bàjjan la maam la moom soxna mu si sekk ci leeral yu am solo yi nga xam ne daal dina koy def mu daal di jëm ci waañ wi ci wàcc eh, wàccaay yi nga xam ne eh, def nañ ko bu daal di jëm ci li nga xam ne mooy màggal gi ah, ci ndek géeg añ beeg yu ni mel xam naa ci kanam tuuti sax ñu mën dellu si waat daal di xool eh, ci añ beeg yu ni mel naka lay demee bu soobee yàlla xam naa ñu wéyal liggéey bu soobee yàlla Rama jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey di nga ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy programme màggal gi eh, fii ci diwaan bu Touba Doyoli eh, comme ni ko waxee woon Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké eh, gis ngeen arrivé bu am solo bi nga xam ne def na ko waaye accueil bu chaleureux bi nga xam ne fii ci diwaan bu Touba Doyoli noonu lañ ko accueillir jamono ji nag waxtu yi mi ngi bëgg a ci màggal gi ba taxoon ñu bëggoon a seq ak moom ay kàddu rek daal di koy baaxee ñi nga xam ne ñooy mbokki talibé yi naka noonu mën nuyu ko jaar ko sëñ bi ñu ngi leen nuyu di la jaar fay bu baax di nuyoo bokk yëpp di wax alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala man nabi baada euh, di sant bu baax a baax a baax a baax ci yàlla bi ñu defee ñu fekkiwaat ko te at yi weesu yëpp doon ati gàllankoor yoo xam ne mbirum sama borom rek la woon ñu ñaan yàlla mu jeexal loolee te xottil ñu ay xéwal yaatu lool ak i mucc ci lépp loo xam ne rek day lore may ñaan yàlla tamit sunu maam yi nga xam ne jiit nañu ci sa borom dool leen yërmande ak tawféex fañ nekk te lii ñuy liggéey sa borom ngir yàlla rek tax ñu ko ne ngir ak bokk sa boroom àggale ko di nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, di wax ne nag tey moom bis la boo xam ne bis bu sant rekk la ndax euh, mbooloo mu ànd xam ne ñoo bokk dara ànd di ko dundal loolu doy na cant donte nag ñu koy am ñoo day am sax jamono yoo xam ne nit ñi dañuy dem ba jamono ak bokk jàppalee ñu dajaloo donte démb mel na ne neneen tamit ñoom dañ fexe ba rafetal ko laa mën a ñu ñi xam ne day démb ak tey lépp daa rafetoon maam yoo xam ne fa ku baax ko ki gën ko nekkoon fekk nañ ko fa fu nekk mu am ñu am seen i ngërëm ànd ak moom liggéeyal ma wàcc leen ñu dëdd woon ñu ko naaw njaboot gi ànd tey jii taxawalaat lu mel nii fu nekk bëgg dem mu ngi gis kër ma Mali bëgg dem nga gis kër ma Mon Juba ba ci topp nga gis feneen te tey jii ñoo ngi fii kër maam yu suba kër maam Mbaye ña koy defee xam nga loolu euh, bokk yu ànd rek la di taxawu seeni waajur leen ñaanal ñaan ko yàlla na saabu àggale may dolli na sant nag bokk yëpp dina xamal day sama mbégte rek la jot ci ñëwaan damay wax toujours ne sa borom bu la joxee bokk te bokk yàlla siggil leen foo toll ba ngaa siggi noonu lay doxee mooy ne bokk yoo xam ne sa borom jàppal na balaa bokk yoo xam ne day duñ ay ñëpp ay taal ñëpp ay tànneef kon nag maa ngi seen sa borom bu baax a baax di leen xamal de man daal maa ngi nii maa ngi nii maa ngi nii maa ngi daal mooy maa ngi nii rek. comme ni nga ko waxee yaa ngi nii kilifa goo xam ne ràññeeku nga ci askan wi moo xam muy Taïba ak feneen fu mel ne fii ci diwaan bu Touba Touba Doyoli euh, manifestation yu bëri di xew ñu la ciy gis euh, tey nga ñëw fii ci diwaan bu Touba Doyoli tey boo moon kàddu goo xam ne bëgg nga àggee euh, mbokki askan wi wala mbokki taalibe yi moo xam mbokki Taïba ku mën di doon lan lay doon waaw xam nga damay wax rek ne lu tax ñoom fay gis dama cee boole bu fekkoon ne boolu ma dama gis ndax bis bi maa jàpp bis bi at mu jot man na ñëw dama bi ma jàpp bis bi kon ku jàppe bis yaakaar ne yaa ko moom moo tax noonu laa ko mën a ci Taïba maa ngi profité di nuyu sa euh, maire Taïba sëñ Babacar sëñ sëñ euh, Aliou Badara yu woon na ma léegi di wax ne euh, dafa am ngant moo tax ak si wut ba yebal na Mor Xar bu teewal ko fi moo tax Mor wari di di kii maa ngi koy maa ngi koy kii bu baax baax di ko ndokkee ci di xew léegi fan yi ñaanal ko sama borom yenn yenn bi oyof toy yu àgg jàmm mbak siñu fal ndax ñoo ko moom ñun la ko defal kon nag ñoo ko ci sàggal di wax ne bokk bi yëpp li rek la ak mbokk moom dox wax rek la amul distraction la ca nekk rek mooy ne ku ca dox wax ca la sama biir ngay am rek kon yàlla na saxal ci bokk wax naa ko ca màggul ma malak ni leen maa ngi ñaan sama borom day mi nga xam ne moo ma bind moom ma lépp loo xam ne ak bokk koy defar yàlla na ci nekk lépp lu yàq bokk yàlla ci yàlla sori loolee loolu nag cay nekk ba tey jii moom indi fii tey jii danañ yóbbu danañ yóbbu feneen waaye fii dafa nekk particulier boo xam ne bii moom sama borom koy wax te spectaculation bi Sëñ Fallu mën na ko seere dama wax léegi euh, mbokk yi fi ñëw neen day dëkk bi day ñi fi mujjoon ci sama seti sama euh, dooy maam Aliou yooyu mi maam Moustapha bu fekkoon ne seet na li may màgg yi at min li lu ko néew néew dina mat soixante wala boog cinquante bi muy génn nekkoon na ci juróom ñetti fukki at nangam te maa doon sëriñam bi mu waxee ñii dañu ne déet lu ma dañu foto su la ak bokk la ndax kat seex moom bu soo moo doon sëriñam keroog ba mu làqoo dafa maa woo ba mu ñëw damaa romb sax naan mais soxla ma ko yor da may kii rek da nga may nangam nangam du weppan damay maame moom li may wax day lu ma ñor la moo tax ma lay woo te maame ma la dama laa bëgg soxla ma ñëw mu ne ma eh, sama sëy dafa làqu ma war te kuy nam ko sax xam nu ngi ko waxee noonu colof kuy kuy xaw ma lan ah, waaw da ngaa tëggut noonu ko waxee te def nga suñu kër kon du ma la yeesu sama bopp a ngi nii eh, jox naa la ko bëgg naa nga taxaw fu ma dëkk yàlla jàggar dana ko yaakaar Sëñ Fall te yaakaar ndax man kat mënu ma mënu ma ma ne a wax wax naa yow nga xam ne daanaka xulóobu mu mu ko nag doxal gu wér a wér te xam naa ne yàlla nangu na ko ndax am na loo xam ne kenn mënu ko wax ci biir rajo ñu seq ko maag moom sans borom dogal bi ma xam ko wér te loo xam moom du waxi rajo te seer naa sans borom yàlla nangoon na jébal ko ko loolu xam naa ko man ndax euh, alhamdulilah waaw ma wax ko laa wax ñu moom mi kat amagoon na ma nangami at ba juróom fukki at juróom kat te liggéey àdduna maa doon sëriñam dañu fottu seen daal laa ilaaha ma bokk la jëriñ bokk gi nag la ñu waa dëkk bi dox baag si fii doon loo xam ne sant sa borom wax ndekk lay doon di yàlla daal bokk yi xam ne yàlla defal nañu ko daal yàlla na ko sa borom gën gën a saxal yàlla na ko sa borom loo xam ne gis nañ ne luy pakk pakk la saabu tegal ñu ko ba yéene ji nga xam ne am naa ko nag man dama ko seet sama borom rek yàlla rek laay seeral sama yéene ji ma am ci bokku tey ak bokku baat yi nga xam ne yàlla boole na ma ak te ñuy ay ay ndeylal yoo xam ne yii mën na leen sagoo fu kon yéene ji ma ci am yàlla na ko sama àggaleel. ñun nag ay ndaw lan rek liggéey Sëñ Tuubaa rek moo ñor léegi ma gis ko ci sama mag soxna maam Isa xam nga ko bu baax waaw di ko jàppale ci liggéey bi rek ba mu taxaw. foofu ci Mbusoobe léegi may def at mu jot di barkeeloo sëñ Fallou di ko sant bu baax nag sama sëriñ bii ko ñaanal tamit moom tamit mu yàgg loolu te wér ñu ñëw di barkeeloo rek lii ci kafe gi. ba waa dëkk bi nag tey ñu ne ma bul indeeti oto bul laa seeti kenn del bàyyi ñu la koy defal kon nag kontaan naa ci ñoom lool di ñaan nga ñaanal leen ndax boo leen ñaanalee Mbàkke mu am ñaanal leen bu baax te ñaanal ñu baax Mbàkke. loo xam ne loo xam mooy li ñuy wax yor las beer wàcc mu jëpp ñu jàpp ñaari ma maam Aliou liggéeyal suñu Tuubaa ba wàcc ba am ngërëm suñu Tuubaa kon moom kon liggéey ngeen suñu Tuubaa foofu waaye surtout bi Sëñ Samba bi nga xam ne doom bàyyi muy xew te Sëñ Samba tey jii Sëñ Samba ak suñu Tuubaa ñu bokk lépp suñu Tuubaa yar ko muy suñu Tuubaa ji sotti yéen kon bu ngeen amee ngërëm moom ñaari ngërëm ngeen am suñu Tuubaa ngeen am te lii ngeen def nii kat du caaxaan de euh, maanaam jëggaani ñuy liggéey indi leen fii ñuy defal kafe ngeen nekk fi ngeen dem ba xam ne yéen koo def ngeen def ko ngërëm suñu tubaab jaa ngeen di am ngeen ngërëm suñu tubaab bu wér-wér loolu kafe gi nan naa ci dégg ngeen ngeen xam ne kon na yàgg lool te ànd sax si yàlla te yàgg ko ànd moom mi waaw moom nag sama sama rakk waaw joo bokk bàyyi ma def alhamdulilah xam nga rek sa saani jaay waaw waaw <laughs> maam Aliou dadul gone mag la ca mag ña la bokk dafa liggéeyal seexul xadim ba am ngërëmal seexul xadim am fa ay doom yu doom yoo xam dañoo liggéey ba am fi ngërëmal seexul ñi fi fekkoon muy sëñ Basiru ak sëñ Abdulaat ba lépp am fi ak sëñ kon bu fekkee na jaboot na am ay doom am ay sët bis bii ñu jàpp ko ngir bëgg mu sax dañoo war defar liy tax di saxal sës li li li li doxal bis bi ñu def ko at mu jot yi ma fekkee sëñu bàyyi na itam ñu ànd kook ñun te su ko neexoon mu toog ca Ndakaaru ay yitte la am ay yitte yu mag la am. ndax kàddu gi Serigne Motoda moo ko war def gannaaw bu waxtaan wi tàmbalee daa fekk ne defoon nañ benn ci rajo bi léegi ca néeg ba ba liñ bëggoon wax lépp tamit tënkaale nañ ko foofa ngir boo ëllëgee mën koo gis waaye sama doom Serigne Motoda. doon sama doom doon sama rakk ndax ñoo bokk ndey man ak bàyyam ñu bokk baay kon am na fi ñaari cër moom laa bàyyee sama kàddu ndax dafa am lu ñu sëñ bi def loo dañ am ab réunion sept heures et demi ndakaaru moo tax ma dawoon ñëw balaa booba mënoon a fekk jiwaat moo tax ma ne ko kàddu gi sa kàddoo kon sëriñ bi yow mi doon ñaan kàddu léegi dañoo tàmbaleegul kàddu yi moo tax waaye sa kàddu na am bu soobee la euh, sama nijaay dégg naa li nga wax waaye cant gi jaru ko ndax euh, def li ma war la dama war lu ma fekk ñu yëkkati ko mu jëm ci ñi nga tudd noonu ma summi samay dàll summi sama mbubb bu nekk ca ba mat loolu moom war jàpp naa ne li may aajowoo rek ay ñaan ba li ma yéene sa borom àggaleel ba ko rek jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo loolu bokk ci cérémonie bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci màggal gi euh, Serigne Cheikh nga xam ne mooy kilifa gi kenn ci ñoom moom it yëkkati na kàddu ci biir cérémonie bi waaye euh, jeexagul ndax nga xam ne mooy Serigne euh, Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoulaye moom Serigne Mourtada moom moo war a continuer li nga xam ne mooy cérémonie bi incha allah rabbi waaye it wax nañ lu am solo daal di souligner li nga xam ne moo jëm ci defar dëkk bi gi nu mel loolu danañ ci gën a bàyyi xel Serigne bi sax wax na ci laata muy ñëw ci bâche bi waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi daal di ci bàyyi xel bu baax a baax ci kanam tuuti rek ñu daal di wéyal li nga xam ne mooy liggéey bi ànd koog Serigne Mourtada ak ñi nga xam ne ñooy mbokki talibé yi waam lanaa makaarimal wala taasubi wala taqasubin wala tadaburin wala tabuxurin wala tanafrin ataa nasiirul muslimina xaasiin والمؤمنين المخلصين الصالحين واغفرنا وحافنا بعافية تكون في دارين خير عافية واغفرنا وحافنا بعافية تكون في دارين خير عافية واهل وقفنا عن مظلمة ونادي كل مسلم ومسلمة واولنا يا ربنا وفد الختام عند الممات وقدا يوم الخيام بجاه خير من سوى الأمرار ووهب المرحب والأحرار محمد منتبه من الأمام أمير الأمرالي والأسخاني وسلي عليه وسلم وأهلي ما سياب الكرماء kon nag dañoo war a góorlu doon benn say yëkkateendoo tegandoo xàccandoo dóorandoo mbooloo luñ jëm man ko ah man de moom li ma nekk maa ngi ci damaa fas yéene nag ah mu jëm kanam ne xam naa ne njariñ rek moom laa ci jëlee du ma ci jëlee wàññi barke nag laa fi sàkku sàkku moo fi nag benn fifteen boo xam ne dama ko fi sàkku bu doon looloo dew naa bu yàgg ndax bu ma neexoon sama mool yi ma teg ko Touba ca kaw wala ma teg ko Dakar ngelaw lu sedd di ma wut may toog samay jëm ma di ma ceebal ma di ko lekk mën naa ko bu ma jógee sama oto jaar fële ne ah fay de mooy diwli sama dëkkub maam mais du ko def bu ma amee dërëm dinaa ko bokk ak su ma sañoon doyul li mooy dàq Paris. nga xam lii ku ne bëgg na ko te mënu koo am ñu ngeen defal na ko nun doo nga war a sant noo ngi leen di sant ba fa kanam yàlla sant gi nag xam nañu fu mu tàmbali waaye xamuñu fu mu yem. Fallou Seck mi nag moom lu ñu ko lu ñu leen defalu rek dañu koo amul waaye lépp lañu lépp lañu ko yéene ndax bàyyi ma yaasin man lépp lu ñu kii sama loxo lañ koy teg ma bañ fi ñëwee ba tey. ba léegi maa ngi jël numéro am ndax dama ko dama koy woo ndax dama koo nam lépp bu fi nekkee yëkkeen gi yàgg naa fi fii jiite te yàlla nañu yàgg kii màggal mi ñaanal ñi nga xam ne ñoo la ko jagleel ahlu sekkeen nag wax dëgg yàlla li ngeen def bari na dëkk yu comme waroon a def te defuñu ko yéen def ngeen ko ñëw di màggal bésub doyooli bi nga xam ne maam Aliou Seck moo fi doon chef du di boroom dëkk bi sampoon fi daara ñu bari jàng nañ daara ji kooku bu ngeen ñëwee di ko màggal yéen a ngi màggal ku mag ku rëy koo nga xam ne nituk islaam la koo nga xam ne moo liggéeyal xaadimu rasool ba mu ba mu wàccee ko yebal ko doyooli ñi ma ëpp xam-xam ci loolu danañ ci àgg noo ngi sant yàlla di leen sant di leen euh, gërëm te xam ne bànneex bu bu feesee ci xol wax du bari gi xam ne jox nañ ko bis bii nii def ci seen alal euh, ak lépp loo xam ne mën nañ ko jàng fi alxuraan ba bis bi mel ni mu mel kon dañ leen sant bu baax wax ji sax mm, jëru ko woon ndax Baye Cheikh bu waxee rek ñun waruñu woon a wax waaye ndigal moo ñu fi bàyyi moo tax waaye bëggoon nañ sax buñ julee takkusaan yeewi ko waaye ndigalu sëñ bi moo ñu fi bàyyi ba heure bi loolu ànd ak loolu lépp nag ci euh, fii lañ mbokk daal dëkk bi suñu dëkk la ma maam Aliou tamit suñ maam la comme ni ko si misba waxee rek ñu gën a fonkaat dëkk bi daal fexe ba naal fi jumaa ju mag li si misba wax luñ ko jéemul waaye luñ jéem dañu ko man buñ ko jéemoon balaa am ñetti weer ñu daw ko jumaa loolu mul wér la fexe tamit ba def fi kër maam Aliou gu mag fexe ba def fi daara alxuraan ndax àdduna kat amul solo dañu fexe ba ñoo mag ñi moom def nañ seen waar li ñu waroon lépp def nañ ko waaye ñun ñii na ñu war jéem loo xam ne taxawal loo xam ne day doon loo xam ne lu am solo lay doon ëllëg kon nag xam naa dama mënewul wax waaye maa ngi sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla si mboroom mu guddal suñ fay suñ fan may ñu ak yàggal ñu fi ñu yàgg a taxaw bis bii nii te lépp loo xam ne def nañ ko fi ci ay ñaan ci ay sikar ci lépp lu baax yàlla na ko suñu borom nangul di yàlla ñu teew koy at yu baree baree baree bare te kenn bañ a manqué ci bàkk Sëñ Tuubaa jërëjëf kontaan nañ lool jërëwër jërë ngeen jëf mbokk yi loolu nekkoon cérémonie bi nga xam ne moo amoon ci màggalu Serigne Mame Cheikh Aliou Seck fii ci diwaan bu Touba Doyoli dégg ngeen am solo yi nga xam ne moo fi yëkkatiku daal di bàyyikoo ci nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ñenn bokk ci mbokk gi waaye it kàddu Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké daal di fi yëkkatiku moom mi nga xam ne wax wax ju am solo daanaka sax yàggul ci jotaay bi ndax am urgence waaye nag bàyyi ñoo nga xam ne mooy Serigne Mourtada Mbacké moom Serigne Abdoulaye Mbacké moom Serigne Mourtada moom it yëkkati fi ay kàddu nekk kàddu cant ngërëm ak kàddu ñaan daal di yëkkati jotaay bi ñaanal mbokk ba beneen mbokk euh, gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam moom la àndoon ak ci subaak léegi euh, ci témoignage yu am solo yoo xam ne mag ñi amoon nañ ko fi mu daal di jëm ci ki nga xam mooy sëriñ euh, li nga xam ne moo fi ci ay ci ay programme ci subaak léegi lu ci mel ne wàcc kaamil yeeg yu ni mel bi macha allah waaye nag gis ngeen ci bi nga xam ne ay Balla Mbacké euh, daal di amal arrivé bu am solo waaye nag dëkk bi daal di koy accueillir accueil bu chaleureux euh, ci li nga xam ne mooy euh, màggalu Serigne Mame Cheikh Aliou gi fii ci diwaan bu Touba Dioli bokki programme yi nga xam ne amoon na fi yaakaar naa dara raw leen ci loolu nekk liggéey boo xam ne dañ doon góorgóorlu ànd ko ñi nga xam ne ñooy waa 28 pro suñuy wóllëre lañ macha allah jàpp dañ ci liggéey bi bu baax a baax sant képp koo xam ne doon nga jàpp ci liggéey bi sant ñi nga xam ne ñooy suñuy mbokk internautes saa yu ne di ànd ak ñun ci liggéey yu am solo yi nga xam ne moom la ñuy amal présentation bi seen mbokkum taalibe Baye Samba Seck ngeen ci àndaloon bu ko bu baax a baax jox leen dig daje ba meneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu